salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com comme ni nga ko defee saa su nekk lépp lu soxal askan dañuy dugg dem waxtaan ak ñoom jamono ji bi ñu ko déggee dañu nekk ci jamono événement mu nekk événement bu rëy tabaski ñëpp di ko waajal te nag lu ñu def lu ñu dugg ci waale comme ni nga ko waxee. gars yi jaay xar yi def opération di jaay am na ci ñoo xam ne dañu am difficulté am na ñoo xam ne amuñu difficulté dañuy dugg waxtaan ak ñoom laaj leen ñoom nan lañuy dundee événement bi ak veillé bi ñuy veillé ak ak ak seen manque de sécurité bi yooyu yëpp daal nañ leen ko andi lu ñu defee lu dul ànd ak sama caméraman bi Dieng Ramos moom lu mu filmé rek rafetul dañuy dugg laaj gars yi ñoom nan la ñuy dundee ak ci ci événement tabaski xar bi mooy xaru waale moo moo waree a dem kër Papa Thior waaw mi ngi noonu dee na ah, ak yar xar nu mu méttee ak di opéré xar ci ci événement yi di veillé booba léegi nan ngeen ko dundee. waaw ñun moom dañuy sant yàlla bu baax waaw di sant suñu borom di sant tamit ku ñaan Waly Seck ren ndax tamit ñun dañuy jënd xaru deux 200000 sax mu wóor na ñun bii 200 lay jar te bis bu ñu nee ko trois 300 sax du si teg baat danaan tekkil xam nga ni kooku noonu tey mi ngi avancé loo xale yi di jàppale ndaw ñi. ndax tey mënoon na nekk di wax waxaale ñun wala xam nga waxaale bi di dëgër teewul fii géttam la xam nga mais teewul day ñëw gétt jàmbur jënd fa jënd fii jënd fee jàppale ñëpp ñu am jàmm kon kooku dañ kaa war a ñaanal gudd fan ak wérgu yaram. qualité bu ne boo bëgg rek da ko fi am qualité boo bëgg ci xar non maam euh, prix boo ci bëgg rek da koy da ko fi am incha allah. moom jënd na ba pare xanaa. non saa moom xam nga ne moom daanaan la moom. Ah. saa moom moom moom daanaan la. kooku moom macha allah moom social moom waaw moom du question jënd sax mais day jënd laale waaw man Assane boobu bi du bàyyi ma papa mais chaque jour fii lay nekk di gis lu rafet lu muy def barki alxuraan lu karim sama bët moom may billaahi wallaahi wa taala moom waxuma jëndam de mais day jënd ay centaine de personnes nag laa la wax sama bët moom may billaahi wallaahi taala depuis lu un mois ba léegi ñu ngi fi nekk si xar yi di leen toppatoo daal na mu ko waree gis client yi tamit ñu ngi ñëw euh, lu ma la mën a wax daal mooy metti na daal moom metti na trop waaye nag ku bëgg dara faw nga ñëwee lu metti lu metti moo tax daal boobu ba léegi ñu nekk si rek di taqale daal waaye ñu ngi sant yàlla bu baax moom bu baax a baax mais metti na trop daal. Euh, yar xar moom euh, yàlla def nañu suñu bëgg-bëgg la suñu liggéey la it xar moom ku ko nekk moom nekk si moom ci coonam. waaye ci wàllu opération tabaski euh, bokkul ak na nga koy dundee sa kër ndax ci àll ngay nekk ci ngay fanaan te liggéey nga ko def kon na ngay bëgg dara waaye nag euh, difficulté yi ñu dund moom euh, yu néew la fii ñu nekk actuellement yàlla def na ne am nañ place ndox am nañ lépp mais ndox mi moo ñëwul bu baax mais place bi moom macha allah baax na courant leer na mais sécurité gisuma ko fi wax dëgg yàlla. amoo leen sécurité fi. gisuma fi benn homme de daal wax dëgg yàlla benn homme de tenue gisuma ko mais place bi moom wax dëgg yàlla mais nag dégguma fi benn coow it waaw ah, fi la fanaan bu ñu installé suñu xar yi kay dootuñu ñibbi sax suñu kër fi la def lépp ndax xar yi ñu ngi koy jaay duñ ko yóbbu da nga koy jaay bàyyi ko fi en même temps euh, moo tax euh, boo xasee ñëw daal jeex na lépp daal fi ñu koy def ba ngay def. waaw fii moom wax dëgg fa yàlla ñaares ñun suñu bopp xam nga ñooy gérer suñu bopp lépp robinet yi waaw ndox bi moom mi ngi fi doy na sécurité bi moom waaw jàmm rek ndax fii moom méttiwut waaw amul ay sàcc amul dara wax dëgg fa yàlla te fii tamit am na ay garde corps ndax yi bëri nañ pële de ay vingt personnes ñu ngi fii nii si gétt Wally Seck kon kooku moom am na jaamu ñu suñu policiers yi sax dañuy gaaral suñu bopp wax dëgg fa yàlla ndax gars yi moom xam nga ku nekk mi ngi tal liggéeyam kon tey ñu ngi sant yàlla bu baax daal. ah xar jafe na nag dafa métti trop gars yi fi nekk moom dañu sonn trop waaw moo tax fekkoo fi sax effectif bi effectif bi ñoo xaw a ñoo dem noppaleku sax waaw pour ñu di ñu relever ñoo nekk heure fii daal di gérer mais sant yàlla bu baax. xam nga euh, tabaski dafa nekk loo xam ne. farata la quoi da koy def ci ak sa doole lu mu toll rek ku nekk yow xam nga li nga war a mën a jënd waaw man laay diggal nit ñi waaw ku xam nga bu xool wàcc na wala yéeg na yow li nga mën te ku di nga am sa wërsëg ngay jël. billaahi wallaahi taala. métti na waaye heure heure bu. xont bu jotee rek gars yi dal ci gars yi dal. yéen xar yu mag yi ak xar yu ba ngeen ci choisir di ko jaay. buñ ci choisir xam nga dara la tamit te àdduna tamit ñëpp bokkuñu yam waaw ku nekk ak sa poos fam toll rek. fi mu toll nii boo ñëwee ku nekk xar ma nga toll loolu rek nga daat koy jéem a daal. waaw xar yi ñun tiituñ dara ndax faramaareen heure bu taxawee duñ tiit dara day ñëw rek nañu yeewil nga ne ko 400 mun na la yeewil kooku talul waxaale kon xam nga ni kooku mi ngi jàppale xale yi. da jàpp ne waale moom bu ñëwee du waxaale da ngay wax prix rek mu jàpp ci. barki Seexul Xadim du waxaale. day ñëw na la temps nga ne ko temps mën na la yeewil barki Serigne Saliou foofu sa gémmiñ su fa yàggee rek si yow la mais du si côté am baax a ngi noonu. ku jara ñaanal koo xam ne dafa bëgg ñëpp bëgg ndaw bëgg mag bëgg ñëpp kon kooku dafa jara ñaanal ñun ñi ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax saa su ne lu mu bëgg yàlla na ko suñu borom bi may. problème mu ndox fa ngeen koy jëlee ñu xam ne dundal xar dafa metti oh, lépp lu ñuy def dañ koy jënd a ah, ñun dañoo jënd ndox euh, dañuy jënd ngooñ dañuy jënd ripaas dañuy jënd lépp lu jëm ci xar yi suuf suñu fi def sax ñoo ko defar suñu bopp. mais tey ku ñëw jënd xaram bàyyi ko fi kooku amaat nañ xaw a jàppale jënd ci ngooñ wala ay repas du genre yooyu. ah non non non diwdiwuñ ndax ñi nga jaay xar dafa am ñoo ay client la ñuy doon dañuy jënd xar bàyyi ko fi ah, bu ne ko ndax ñu bëree bëri mënuñu jënd xar di ko yóbbu amuñu place ah, tey ah, contact yooyu nga euh, yooyu nga am ak ñoom moo tax ñuy jënd seen xar di ko bàyyi ak yow ndax dèjà ku jënd xar xamu la wala sequ leen dara doog fi bàyyi mais da lay xam ñoo xam bu ne suba julli ci guddi lañ koy jël sax ñoo ñoo la ndax yéen yor xeer amoon leen dara looy tiit que ah, camion yi war a andi xar yi parce que xar yi ñu ngi ñëwaat est ce que yéen amoon leen dara looy tiit ak seen xar yi ak par rapport prix yi ngeen koy jaay. déedéet am tiituñu si daara xar yi day ñu ngi si sant yàlla bu baax te ñun daal jàpp nañ ñi moom incha allah lépp day jeex incha allah waaw. ana yi ana xaram moom. yi mi ngi fi sànq si matin bi rek la fi jóge waaw te mi ngi def ay teraanga si xar yi teraanga yu sax. waaw ba tey si subaa si mujj te pareegul waaw te Faramareen ngi yaa ngi ko gis. jërëjëf jël xaru Faramareen. aussi ñu gis sa xar yi macha allah mu nekk xar yu mag ah, ñu gisaat yeneen xar yoo xam ne tamit xaw na yam ñu laaj xar yu mag yi ak xar yu ndaw yi ban moo gën a yomb jaay. waaw xam nga lépp loo gis eh, liggéey la li nga bëri gën a ëpp client rek nga ëpp looy liggéey yàlla def na ñun bu bu bu tabaski ci xar yu mag la ñu nekk eh, jaay ñu xar mais dañu yar ay suñu kër. ci lañ nekk di liggéey léegi nag ñooñu nga am euh, seq ak après ñoom ñooy ñëw ci yow di jënd ci xar kon xar yu mag yi la ñu nit gën a xamee ndax bu affaire yi jàllee des nga gis ku la woo ne damaa bëgg xar bu mag nga dem léegi jox ko ko kon xar yu ndaw yi moom bokku ci suñu liggéey mais nag dañuy gis ni tey yàlla def na ni lépp lu nit di def da ngay commencé euh, ci boo jéem a boole lépp boo ko mënee bu ñu bëggee liggéey wàllu tabaski ñu jël xar bu mag ak bu ndaw boole ko bu ñu ni ñu amee client xar bu mag bu yàggee ñu amee xar yu ndaw waaw loolu lañ ci jublu. est-ce que mën xam euh, prix xar yu mag yi ñaata la fan la yam ak prix xar yu ndaw yi ngay jaay. xam nga xar yi fii xar yi prix yi tolloowul xar prix bu ne am na euh, ndax fii man li ma fi jaayee gis nga ñu jaay lu ko ëpp xar euh, gis nañu jaay xar ay 2 millions fii bu di ko jëndee di ko tëbaskee gis fi ay xaru 150 mille ba muy gis fii ci suñu côté ay xaru 125 mille kon prix yi mënut a tolloo ku nekk client bi nga am ak ki ñëw dooleem fi mu toll. lii nga gis koo xam ne day gis xar yi ngand mu yàq bëtam. mu dootu bëgg xale ndaw mais day dikk di fay prix yoo xam euh, ku xamul lay doon mu nga xam ne ki bëgg na mais xamul mais ñi xam moom vraiment da nga dikk sax ñu leen lii rek ñu jël dem wala ñu leen bàyyil ma bii dem